boyal ñey xeex a ngay buñ tiit te buñu ragal sëñ Bàmba lépp ko ragal korona gënoon a garaaw dañu ko felal ñey taal a boyal ñey xeex a layal kon ñun ñi sant sëriñ Tuuba danoo war a doxal Sénégal réewu jàmm la yow mi lu waral ñu fiita yàlla bàyyi ko ay sa cocktail bi soppi ko wut fur wi boole ko kon mu jox la cocktail cocktail canan yàlla soppi ko wut say fur wi boole ko kon mu jox la cocktail cocktail ca naan yàlla. mbokki téléspectateur 7TV ñu ngi leen nuyu nuyu bu sell asalaam wa rahma wa barakaatu nuyu bu lislaam asalaamaaleykum wa ba ñu sante yàlla julli sonent bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur te ñaanal réew mi jàmm kilifa diina yeeg kilifa aada ñu leen di jàmm ñu nekk soptaal bi suñu borom fëgg seen bopp waaye ñu nekk sa prison bi suñu borom génne leen dañoo def leen fay delloo ñu ñëw fii si jannatu max waa kër suñu becco daja fekk nga xam ne mooy suñu kilifa Eh, suñu xarit suñu lépp muy Serigne Saliou mi daal di cuun moom soxna ay sa Saliou cuun eh, di mag si Seydina Saliou cuun di suñu kilifa ñun ñëpp eh, ñu koy siyaare di ko jox wàccuwaayam dañ koy bàyyi rek mu nuyoog téléspectateur 7TV mi daal di ñu ngi lay ah ñu ngi lay fay bu baax a baax si Moustapha ñu ngi lay bëggee bu baax di la siyaare di siyaare waa adduna bi yëpp di siyaare ñuy déglu yëpp ci bis bu tedd bi di nuyu waa 7TV bu baax a baax a baax te di leen bëggee bis bu tedd bi. jërëjëf euh, euh, Médadi euh, ni ñuy waxtaan rek du du gàtt lay doon ndax xam nañ ni na ngeen a nekk si yitte tey mu nekk yor-yoru màggal sëñ Béthio nan la daan président préparé màggal Touba gi. waaw loolu de moom xanaa moom lu ku ne mën a wax dara la ndax sëñ Béthio moom ku ko xam xam ko ci ci ak bernde. moom la ko sëriñ tubaa jagleel day mel ni bu doon mission la ñuy wax moom la am ci kaw suuf mën na noo wax ne mission sëñ Béthio ak bernde la mooy jox nit ñi ñu lekk ak naan di loo xam ne moom la tuddee ak cant ak cant nag bu ko waxee moom la ko sëriñ bi jàngaloon ca nee na ba mu ko fekkee ca got dajale ay boolam ànd ak njabootam fekku ko ci naaj bu tàng nee sëriñ bi ne ko ana béykat yi lañ nga ci jublu mu ne ko xanaa ah, sant si la rek Mbàkke nee na sëriñ bi dégg baatu cant gi laajaat ko ko ñetti yoon ana béykat yi lan nga ci jublu mu ne ko xanaa sant si sant si la rek Mbàkke nee na mu ne ko nanga nga jàpp ne bis ni ki tey yàlla bég na yonent bi bég na sëriñ tubaab bég na nee na ba ma waxee lool nag ma xam ne mbégum ñooñu rekk ñu indi ci kaw suuf. ca laa def ak cant muy sama diine cant nag moom alxuraan indi ko ay yoon nga xam ne buñ doon lim lim yi ko alxuraan indi duñu fi jóge waaye bi ci gën a siiwute moom moo ko daan wax donte jàngul woon alxuraan la in shakartum la azidannakum man yàlla giñ naa ne ku sant giñ naa ne dinaa la dolli waaye teg ci nag wala in kafartumoo in azabi la shadid mooy ku santul kat ay duma yu tar ñeel na la ëllëg sëñ Béthio nag def cant googu muy diineem wax ni xeeti jàmm yàlla yépp ak cant ci féete kaw ndax cant mooy reconnaissance cant mooy xam ne yàlla mooy yàlla ndax yàlla jaamu gi ñu koy def yépp sant geeg lépp rek jaamu geeg lépp jariñu ko dara ñun ñii jaam ñi lay jariñ moo tax mu ne wa maa xalaqtul jinna wal insa bu liya'budun indiwuma yéen nit ak jinne ci àdduna lu dul ngeen jàmm euh, sëñ Béthio nag def euh, cant googu muy diineem di ko def boole ko lii ma la wax mooy rey di bernde ren di di bernde bisu màggal gi nag nekk geneen cant goo xam ne euh, sëriñ Tubaa ko woote ne ñëw leen ngeen sant ma yàlla kon sant baax na ci ku ko def yemale ko ci yow waaye santub Serigne Touba nag day mel ni boo ko defee day doon fetalu ñaari ngémmiñ ndax Serigne tubaa dayoom ci cant du bokk ak sunu dayu cant ndax cër ba mu am ci yàlla moom ñun moom la amul ci yàlla nangul gi ko yàlla nangul jëfam gu sell loolu moom moom rek la ca fekk kon bisam bii nga xam ne lu ñu am ñun murit bu ñu ko mënee waxee noonu waaye jullit yépp ci lañu bokk ndax. Serigne Touba yi bi muy dem ku ne xam ne la ca la woote woon euh, bis bii nga xam ne du woon bisu bànneex ndax yonent yeeg ñëpp ñi nga xam ne woote nañ ak fet ci bis ba ñu amee ndam lañ ko woote waaye sëriñ bi daa taamu bis bii nga xam ne ca lañ ko doon yóbbu ci nattu yi ca lañ ko doon yóbbu ci jafe-jafe yi nga xam ne xamoon na la ko cay fekk waaye it xamoon na bu ñëwee lam cay jële nga xam ne dina jëriñ àddina dinañu jëriñ àddina dinañu jëriñ alaaxira ba tax na mu woote bisam bii mu woote ak cant bernde seen Béthio nag ci loolu ma la wax mu déggee cant noonu rawatina nag bisub Sëriñ Tuubaa bii nga xam ne moom la woote ne nañ ko sant la euh, ci li ko dalee ci ginaar ba kon loolu jullit yëpp ko moom ndax jullit yëpp la sant yàlla war loolu mooy li nga xam ne moom la woote kon ak cant rek nu war Euh, bu nu ci woowee ñun njabootam tey mu wan ñu ginnaaw sëñ Saliou ndigal di fi xalifaam doxee ko nii mu ko doxe di ko defee nii mu ko defee nga xam ne day mel ni sëriñ bi ci saayir boo xoolee nii fi demee di nga xam ne sëriñ bi day mu ngi suñu biir ba léegi jógu fi di nga xam ne sëriñ bi day jëfam sunu borom nangu na ko di nga xam ne euh, sunu sunu borom day euh, di sëriñ Saliou a nangu na jëfu sëñ Béthio ndax waxoon na ko ah, nee na ko woon ah, nangu nañ sa jëf ya woon nangu nañ sa jëfi tey ah, nangu nañ sa jëfi ñëwagul loolu nag ba sëñ Béthio wone ginnaaw ci saayir ba léegi day wane rek lii di xew lépp rek te mu sell gën a sell lool te gën a baax lool te sëñ Saal jiite ko ñu ànd kook moom day wane ne rek ne jëfu sëñ Béthio moom lu yàlla nangu la jërëjëf euh, mi daal di euh, beneen question bi ñu lay laaj day day aju si euh, diggante Serigne Saliou ak Serigne Béthio ndax amaana daan nañ dégg ñu ne am na télé national bu fa demoon mu ne leen solos màggal gi soo soo leen ko bëggee gis dem leen fekk ko pencum janatu ma waa tey nga nekk leer si Serigne Béthio ñu fekk la fi tey loolu noonu ana lan ñu si mën a wax. waaw xam nga li ma la wax rek mooy santuk Serigne bi du bokk ak suñu cant moom nag dafa amoon tawféex Serigne Saliou wax ko ne def sa màggal muy sama màggal loolu nag day mel ni ci moom lañ ko njëkk a dégg ndax ginnaaw bi ma la waxee ne la sëriñ bi cantam du bokk ak sunu bos waaye sëriñ Saliou it màggalam bokkul ak sunu màggal ndax mooy boroom màggal gi moom sëriñ Saliou moomu moo ko ne def naa sa màggal muy sama màggal kon sëñ Béthio dem na sax ca loola ba yoonu murit bi nga xam ne moom lañ bokkal màggal gi bu màggal jub see xel yëpp ci sëñ Béthio lay dem kon day mel ni waxi Serigne Saliou boobu nangu na ndax li murid yi bari bari ku ne fonk màggal gi bëgg koo fonkee nu ko sa morom fonkewul euh, day mel ni dem nañu ba bu ñu tuddee màggaluk Touba xel yëpp dem ci sëñ Béthio kon sëñ Béthio jëfum ci màggal sunu borom nangu na ko lool te ku ñëw fii ci péncam mii ku ñëw ci taalibeem yi xam ne sëñ Béthio de màggalam màggal gii Serigne Saliou waxoon ko def naa ko muy sama gos moom sunu borom a nangu na ko loolu te barkeel ko waaw loolu loolu rek lañ ciy jëlee. Hmm. fi ñuy tëjee mooy euh, njabootuk sëñ bi ñu gis ni ñëpp dañoo bootu si euh, ginnaaw Serigne Saliou ndigal ci woon nga xam ne mooy suñu sëriñ ñun ñëpp euh, sa digganteeg Seydina Saliou ndax ñun amaana si moom lañu la ñu jokk teyit nga nekk suñu kilifa sa digganteek Seydina Serigne Saliou. waaw ah sama digganteeg Seydina yi moom <laughs> moom bu ma ciy wax sax xam naa ne dina xorom ndax koo bokkal li ñu njëkk a bokk ah, mooy Serigne Touba mi nga xam ne moom bi ko waaji ne yaa gën yaa ñu gënal lay yaa ñu gënal bàyyi ah, da ko ne sa woy wi de bëgg naa nga defaraat ko boo ko doon defaraat nag day mel ni wax ko ne ko yaa gën ci ñun ndey yaa gën ci ñun bàyyi kon Serigne Touba moomu ñu njëkk ñu njëkk a bokk moo tax ñu bokk lépp rawatina nag ñu bokk sëñ Béthio bokk sëñ Béthio mi nga xam ne tey bu amul woon duna am bokkaat soxna Aïcha Kane mii di sunu jur wi nga xam ne moom it bu amul woon duna am kon Seydina loolu lañu bokk bokk nag ndax bokk mooy bokk yéene bokk pas-pas bokk lu ngeen bëgg bokk lu ngeen di bañ loolu nag nit mën naa bokk ak nit te euh, du ngeen ko bokk waaye moom nag yàlla dogal na ñu bokk ba noppi bokk lu ñu bëgg bokk ba noppi yéenante jàmm bokk ba noppi ku nekk la nga am ci lu baax yéene ko sa morom ba mu gënal la sa bopp loolu loolu la lañu la ñu seq ñu bàyyi la nga tàggatoo xam nañ ne yaa ngi si yaa ngi si yitte ak loo xam ne li ko dénk taalibe yi. ah kon moom maa ngi santaat baax di Moustapha di siyaaraat ñëpp rek di nuyuwaat waa 7TV ci déplacement bi ngeen def ñëw fii euh, doxalee ko nii ngeen ko doxalee loolu cër la yëg la ñu ngi leen ci sant bu baax yow sa liggéey rafet na lool ñu ngi lay suivre ci télé bi ñu ngi gis lu rafet li ngay def ci diine di ko defal euh, di ko defal di ko defal di ko defal di ko defal këru diine yëpp ku ci nekk nga jox ko cëram ginnaaw bi nga bokkee ci ñun ginnaaw ba nga bokkee ci sëriñ bi waaye jox nga kilifa diine yëpp ak kër yëpp seen cër loolu nag ñu la ci sant bu baax di la ci gërëm di ñaan rek màggal gi ñu fekkee ko ay at yu baree baree bari te suñu borom def ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ciy daje xéewal saa su ne ba mën a ànd ak sëriñ bi ci sant yàlla ci santam ji muy sant yàlla jërëjëf. jërëjëf euh, mu nekkoon euh, mu nekkoon Serigne Saliou mi daal di cuun moom sëñ Béthio moom soxna ay sakkan euh, xam naa dañuy wéy toppal leen programme bi fii si janatu max waa dañuy dem léegi incha allah rabi baas ba gis décoration bu am solo boobu nga xam ne sëriñ bi def nañ ko fa ngir lan berndeel màggal gi ngir lan berndeel gan yi dañ leen jox dig daje si kanam tuuti asalaamualeykum wa rahmatullahi taala barakaatu. ngir demam nga ak ñibbisem nga tax nuy sagu ñay taala ngay boyal ñay xeex ngay layal kon ñun ñi sant Sëriñ Tuuba dañoo war doxal bu kenn gis yëf yi ba may réel bopp naan moom kese déedéet moom mi la àndal lépp ma la koy seereel ngir nga xam li ciy des rek lenn rek lañuy ñuy sàkku lenn rek mooy nga yàgg fi tewét yàgg koo teewe yàgg koo fekke yàgg koo jiite sàkk nga ndam ga yàlla nga fi yàgg te wér. waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf. waaw kaddu yi masale na sëkk maa ngi leen di nuyu. nuyu bokki taalibe yi nuyu képp ku ñuy déglu. nañ ko déglu. maa ngi yëkkati kaddu gu jëkk di ko sant bokki taalibe yi sëriñ bi nee na mu ngi yëkkati kaddu yi njëkk. di santaat sëriñ Touba. nee na mu ngi santaat Serigne Touba. di ñaanal Serigne Touba Serigne Mountakha. di ñaanal Serigne Touba Serigne Mountakha. yàgg fi te mu yàgg fi lool Mbàkke te ànd ak wér. di ñaanal sunu sang ba. di ñaanal sunu sang ba. Serigne Cheikh. Serigne moom Serigne Saliou. moom sëriñ Saliou. ak mbooleem njabootug Serigne Saliou. ak mbooleem njabootug Serigne Saliou. ñu yàgg fi te ñu yàgg fi lool te ak wér. di jaajëfal sunu sang ba. nee na jaa jëfal sunu sang ba. borom penc mii. borom penc mii mu ne. ki fi daan amal lii. ki fi daa amal lii. ki ko fi daan amal démb. ki ko fi amal démb. bërki ki bërki démb. ak tay ak tay jii. bu ëllëgee it. ak ndax moom mbiram. ndax moom mbiram. daa yemul fenn. daa yemul fenn. te wane na ko. te moom wane na ko. biñ ko noppee gis ci sunuy gët. biñ ko noppee gis ci sunuy gët. la mel ni. la mel ni. la kattan gi gën a yokk la kattan gi gën a yokk def ko ci def ko ci biir taalibe yi ci biir taalibe yi ñu koy doxe ñu di ko doxee lii nag mandarga la bu ci fës sëriñ bi nee na lii nag moom mandarga la bu ci fës sëriñ xaadim ngom sëriñ xaadim ngom moom ñu ànd ak moom liggéey bi ak ñi ànd ak moom liggéey bi maa ngi leen di sant. sëriñ bi nee moo ngi leen di sant. sëriñ bi dey fa mu toog. nee na sëriñ bi de fa mu toog. ca xéewalam ya. ca xéewalam ya. ca gàngu naayam. ca gàngu naayam nga. ma mu ngi ci ni jàkk. mu ngi ci ni jàkk ci liggéey bi. bu leen nattable ni. bu leen nattable ni. lépp lu luñ fiy def. lépp luñ fiy def. mooy fay. moom sëriñ bi mooy fay. lottu nañu. nee na lottu nanu ci ci lijjanti mbirum sëriñ bi waaye moom waaye moom sëriñ bi xam nañ ci moom astut xam nañ ci moom astut lii lépp lii lépp moo ko moo ko dogal lii lépp moom sëriñ bi moo ko dogal man nag ko nanguy dogal la moom sëriñ bi sëriñ Saliou Ndigal nee na moom nag ku nanguy dogal la ku la nee na moom ku gëm ay dogal la ragal la nee na moom ku ko ragal la ba tax na ba tax na fas naa yéene fas fas na yéene joggi ci seen Pastef bii. joggi ci seen Pastef bii. ndax bii Pastef kat. ndax nee na bii Pastef kat. bu ko ñëpp amee. bu ko ñëpp amee. des na tuuti. des na tuuti. kenn dootul dégg kenn ku dul Cheikh Béthio. kenn dootul dégg kenn ku dul Cheikh Béthio. day mel ni sëñ Saliou neewoon na ko. nee na day mel ni seriñ Saliou noonoon na ko. ci da ñëpp danañ ni Cheikh Béthio. ñëpp daan ni Cheikh Béthio. mel na ni loolu agsi nañ ci sax. nee na mel na ni nag loolu agsi nañ ci nag. waaye des waaye de des na de. ndax doole ji. ndax doole ji. day yokku day yokku. te fa ne. te fa ne. fa lóopee doole foofu tey. te njàngale ma. nee na njàngale ma. mokk na mokk na. lii wane na ko. nee na lii wane na ko. kon yéen am ngeen ndam. kon nag yéen am ngeen ndam. yéen yéen a ngi ci ndigalu nee na kon yéen a ci ndigal li maa ngi leen di sant bu baax sëriñ bi ne moo ngi leen di sant. li ma ciy dolli rek. nee li mu ciy dolli. mooy penc mi ngoon. mooy penc mi ngoon. reer bi. reer bi. ndax damaa fas yéene. ndax dafa fas yéene. képp ko xam ne. képp koo xam ne. cant gi gi. ñor na la ñor na la. ndax da doonoon ndigalam. ndax da doon ndigalam. nga ñëw reer seeg nga bi. sëriñ xaadim ngom nag. nee na sëriñ xaadim ngom nag. bi ma ko ko waxee. mu ko ko waxee. nee na ma reer bi. nee na ma reer bi. maa koy def sëriñ bi nee sëriñ xaadim ngom nee na ko maa koy def. dinaa la ko taalal fi nga bëgg. dinaa la ko taalal fi nga bëgg. nañ ma ko defal ci penc nañ ko ko defal ci penc mi. taal ko taal ko. ba kenn du ba kenn du ndigal laa ngoog ndigal laa ngoog. jërëjëf jërëjëf. nee na ni ko bëggee laa koy sëñ Xaadim Ngom nee na sëriñ bi ni nga ko bëggee nga koy amee. kon nag ak cant rek a ci tege. sëriñ bi nee na kon nag ak cant rek a ci tege. yàlla na nga ko gën a mën. Euh, sa cofeel ci sëriñ bi nag. nee na sa cofeel ci sëriñ bi. moom mën nañ cee seere. nee na sëriñ bi nag nee na moom mën nañ cee seere. dinaa la wax tuuti rek la ma saba sang ba wax barki nee na dana la wax. tuuti ci la ko sangam ba wax barki démb bi mu koy siyaare. man du ma jay kenn. nee na moom day du jay kenn sëriñ bi faj na sama aajo. sëriñ bi de faj na aajoom. bi ma tegee ci barabam rek. bi mu ko tegee ci barabam. la faj nee na boobu yii la faj ay aajoom. ba mu koy faj. ba mu koy faj. booba mi ngi fi. booba mu ngi fi. kon. on du ma wax mukk. kon nag du wax mukk. lu sëriñ bi taxul. lu sëriñ bi taxul. lu sëriñ bi taxul. sa cofeel ci moom. sa cofeel ci moom. seere naa seere na ko moom. sa bëgg ko. sa bëgg ko. seere ko moom sëriñ bi seere na ko. dox nga jëm ci. dox nga jëm ci. saa su ne. saa su ne. ànd nañu liggéey. ànd ngeen liggéey. liggéeyu biir. liggéeyu biir. ak liggéeyu biti. ak liggéeyu biti. ah loolu moom seere naa. non loolu nag sëriñ bi ne seere na ko. cofeel la. cofeel la. ak ah, am sab sëriñ bëgg ko. ko am sab sëriñ bëgg ko. ba ñëpp di xam ko ci yow. ba ñëpp xam ko ci yow. raw nga yow raw nga nag. Ah. kon nag. kon nag mu ngoog góorgóorlul. góorgóorlul. nan ko ànd rek. nan ko ànd rek. ci nii rek. ci nii rek. boo ko defee. boo ko defee. moom fa mu ne. fa mu ne dana dolli ngërëmam dana dolli ngërëmam dana no aar dana no aar yal nañu yàlla musal ci yàlla nañu yàlla musal ci seytaane ci barkeb sëriñ ci barkeb sëriñ Saliou aaral nu boppam aaral nu boppam ba lépp rek ba lépp rek ñu mën cee yegg ñu mën caa yegg barkeb ah. sëriñ Saliou barkeb sëriñ Saliou bokki taalibe yi ñu tàllal loxo yi fu waay toll tàllal sa loxo sëriñ baa ngi ñaan gën koo man barkeb sëriñ Saliou ma ne xéewal li muy bari bari bari sëñ Xaarim nee na ko xéewal li muy bari bari bari boo waxoon doo ko wax nag. nee na doo ko wax nag. waaye bu la neexee. bu la neexee. ñu gas kàmb ba mu fees. nee na bu la neexoon ñu gas kàmb ba mu fees. daa di suul daa di koy suul. sa yëfa sa yëfa. loo ci wax lañ ciy def loo ci wax rek lañ ciy def nee na am nga ndigalul joxe ko. jërëjëf berne leen ñëpp. sëñ bi nee nanu berne ñëpp. màggal gaa ngoog liggéey baa ngi màggal gi borom lim ci woote. gi borom lim ci woote lii la. waaw góor. naa ni sëriñ Tuuba ñun rek ko lii nu am la kenn amul ki ñuy may la yàlla rus waay Ahmadu Mbàkke baare la kenn amul

Sëriñ Tuuba buntu bu tëju mu ubbil nu nuy sagu ubbi kay bi ñëw leen moo du Bàmba la li nu bëgg moo nu koy defal Sëriñ Tuuba Tuuba bi cey bi mu demee ba dellusi ñi ngi wéy fii si jannatu maxwaa di ànd ak yéen eh, ñi ngi si peccub sëñ Béthio bi sëñ Béthio maam Bamba Thiam ngeen gis taawam bu góor bi toog muy sëriñ Saliou ndigal Thioune ngeen gis jëf ju am solo ji nga xam ne moom la fi def ma toog ak jëwriñ Pape Moussa authentique ñëpp ràññee ko si sëñ Béthio waaye ñëpp dama koy bàyyi mu nuyoog téléspectateur Sen TV sëñ Pape ñu ngi lay nuyu. waaw Moustapha téléspectateur yi nga xam ne ñooy seetaan à baax te ndokkale ñëpp di baalu ak ñëpp day di nuyu mboolem seen umma islamique bi ndax lii màggal gi c'est une fête islamique Serigne Touba Minda Foni la di sa mbég di nang ma santale yàlla dalee ci ginaar ba giléem ñu ciy ndokkale ñëpp nag di santaat bu baax ci bés fii ngeen di fekk muy jënatu maxwaa fii nga xam ne mooy cérémonie officielle bi war fi am tey ñu ànd ko suñu sang bu tedd bi di sëriñ Saliou di ngeen ñëw ngi leen di dalal leen wax soyez là bu yëpp di jërëjëf Pape Moussa authentique ngeen dégg wax ju am solo jooju wax dañ lay laaj rek tënk ko ndax xam nañu yéen ngi si yitte nga gis jëf ju rëy ji Serigne ndigal jëf ko si màggal 2023 ak Matlaboul Fawzeyni remise clé bi nga xam ne mi ngi doon jox Serigne Saliou euh, Serigne Cheikh Serigne Cheikh nga gis jëf ju am solo jooju diira màggal Touba ak mbokk taalibe mu ko àndal lan nga ñu mën a wax Serigne ndigal ci waaw li ci gis de mooy mi nga xam ne bàyyi bi bëgg na ndax li am solo mooy ngërëm waaye avant ngërëm li noo da ngay ndigal te ñëpp gis nañu ndigal ndigal suñu ndax keroog ba mu ko fekkee daaru minam Moustapha bay sant sëñ Mountakha dane ko alhamdulilah ndax lii laa ne ko nem sant ko nag kon alhamdulilah ndax lii laa ñaan ne ko gisagoo dara ne ko nag ma def sa nawle yamatul foofu sëñ Sall di dugg ndey Sall ak taalibe bi am fu muy dugg wax naan ko sëñ Cheikh mu ne ko sëñ Cheikh it na def nawle def ko sa nawle kon di gisaat ci mbégte moo xam ne doy na waar ci liggéey li mu doon xalifaam sëñ Béthio te buñ nee yoon wi tey am ñu ne moom Serigne Touba day gàccal démb te sëñ Sall digal ci bu dee amul avancement kon war nañoo xolaat loolu kon nii mu demee tey Matlabul Fawzeyni lañ fa def ci ay koppar ndax tàmbali bi dañoo yegaloon liggéey bu gaaw la naka liggéey bu yombul ndax foofee Touba gii tey ñu nekk bërëb boobu moo ko jur ndax Serigne Touba fa la toog ñaan bërëb bi di Touba ci Matlabul Fawzeyni sëñ Cheikh Serigne Sall daan fa fekk ak sëñ Béthio daan fa toog ndax ñëpp xam nañ taarix ka faam diggante gaynde gi ak jaay àll gi ca Matlabul la Serigne fa fekk tey sëñ Cheikh ndax kon sëñ Sall digal ci ne ko na ko yeesal mu def ko dañ ko def kon sëriñ Tuubaa wane waat na dooleem kon bu bu defee nii ci Matlabul Fawzayni dàq ay nag premier lot dàqaat deuxième lot ñu gis màggal gi ñu mel war nañoo xam ne sëñ Béthio mbiram a ngi dem. jërëjëf ma bàyyi la nga tàggatoo rek xam naa yaa ngi si yitte. ñu ngi sant bu baax di la gërëm di rafetlu sa liggéey ndax mel ni ëttu diine yëpp ngay dem waaye ñëpp xam nañ ne sa péete xam nañ ne sëñ Béthio sëriñ xam nañ ne sëriñ Saliou naa cuun fa nga jokk te gërëm na la te yaa ngi ci borom ndigal cuun di def reportage bu am solo à travers fépp yaa ngi fay dem di sa liggéey di ñaan nga yokk faaw bëgg nañ lool amul moro jërë ngeen jëf mbokk yi safoo set tv lii lañ leen indiloon fi nga xam ne mooy Jannatul Mahwa ñu dégg témoignage yu am solo yooyu nga xam ne moom la Serigne Saliou bi daaji cuun mi nga xam ne mooy rakk Serigne Saliou ndigal cuun wax léegi si biir kër gi ñu génn ak moom ànd ak moom si waañu nga xam ni moom la Serigne bi jox waañu nga xam ne moom la Serigne Saliou cuun seedeel Serigne Khadim Ngom moom it ñu koy sant bu baax a baax di ko ñaanal moom Serigne Khadim Ngom mu yàgg fi loolu tax dëgg wér waaye dégg ngeen it euh, li nga xam ne moom la fi Serigne bi xam ni moom la àndal jëf yëpp ba tax na lii lañ leen di indiloon fii si jannatu maxwa dina jox dig daje si kanam tuuti si seen yéen yeneen programme 7TV incha allahu rabbi dañuy wéy ànd ak yéen ak programme bi ak 7TV ñun ak yéen gi jeex incha allahu rabbi asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf. sa dem géej kon nu sax ci jàmm géej Sëriñ